mais ñi nga xam ne aussi amuñu chance nekk fii bu ñu gisee lu mel nii dañuy bëgg ñoom tam déwoon ñu nekk fii parce que xale boo ko woowee di ko primé même boo ko joxoon benn cahier wala benn bic ka rek ça le marquer toute sa vie donc loolu c'est important moo tax lu mel nii dañ ko war di continuer chaque année ñu koy defal xale yi parce que day yokk résultat intrant de qualité la comme on le dit en pédagogie on dit le renforcement positif mooy xale bi na def lu baax nga nga nga nga ñaax ko jox ko prix da koy gën a ñaax moom ci mais ñeneen aussi da leen gën a ñaax donc euh, action bi action bu am solo la euh, bu amee tam parce que xale yi bu ñu jàngul ba am résultat boo bëggee primé tam doo am koo primé donc c' parce que jàngalekat yi aussi li ñu war a def ñu koy def seen école yi ñi ngi jàngale ay directeurs yu am fulla am fayda aussi nekk si école yi di leen ko gérer démb maa ngi koy jaabel population yi dañuy jaabel enseignants bu ñuy xëy 8 dañuy daw pour bañ a taare ma ne loolu foo ko gisee c' parce que nañ daan fekk donc loolu aussi ñu ngi ñaax jàngalekat yi xam nañ ni na fi mais dinañ si continuer jaax ñaax parce que ñun ñëpp muy man muy monsieur le ak inspecteur ba ak yoo xam ne ñoo ñoo si jàpp di la encadrer xëy fi ñun on se doit de rendre l'ascenseur voilà on mooy li ñu defal ba ñu agsi fii ñun tam ñu defal ko suñuy xale pour ñoom tam ñu mën a réussir voilà donc ñu ngi sant ñëpp autorités yi fi teew yëpp di sant monsieur le sous-préfet. moom comme il a dit de la famille enseignante Diom Aliba qui est son patron c'est un ami on a école kon doon nañu liggéey ñi ñëw bu ñu ci yokkee dara rek résultat yi day gën a yokk voilà donc ñoo koy ñaan CFEE bii ak BFEM bi ak bac bi ñi ngi naan ñu am résultat yu baax mu gën a continuer xale yi nekk dans de très bonnes parce que abri yi bu dañee euh, école yi ñu clôturer leen je pense que le problème sera réglé je termine juste par les abris abri boo gisee zéro abri provisoire ñu dem ba si biir ñu ni loolu yanuwul maanaam ñu ni programme de résorption des abris provisoires lu tax parce que tey dëkk bu nekk fële nekk à cinq ou sept kilomètres d'une école xale yi war a def cinq kilomètres wala sept kilomètres am fa au moins lu mat ay cinquante xale nga bëgg leen dëkk boobu ni dañu bëgg école boo nee da ngay xaar bañ tabax fa classe nga fay def école du sotti li ngay def mooy ngan leen ndax mën ngeen defar abri buñ nee waaw nga leen kon dinaa leen autoriser ngeen ubbi école léegi nag temps boobu ñuy defar abri xale yi di jàng abri dafay nekk moo tax ñu ni programme zéro abri provisoire c'est pas pertinent programme de résolution maintenant ce qu'on doit faire mooy fexe ba école bu demandé ñu ñu la nga am abri provisoire balaa ñaari at yi di jeex ñu construire la classe te loolu liggéeyu maire la liggéeyu état aussi mais suñu démarré suñu activité municipale par les gens une journée de bu dee a l'excellence nag mooy dañu bëgg primer les meilleurs élèves parce que élèves yi euh, dañuy jàng di def ay effort effort yoo xam ne ni seen parents dañ ci bokk directeur d'école dañ ci bokk acteurs yëpp bokk ci ñu ne en tant que mairie comme euh, euh, l'école élémentaire c'est compétence transférée ñu ne war nañ ci dugal suñu loxo biñ ne nañ ci dugal suñu loxo naka la c'est vrai que ñu ngi tabax ay salle de classe ren dans le budget on a prévu ak euh, l'appui des partenaires de réaliser treize salles de classe pour au moins matérialiser euh, le vœu du président de la République mooy que ne Colobane d'ici un an dinañ am zéro abri provisoire au niveau de la commune. loolu aussi ñu ne koy jëmbal ak benn jour de l'excellence de l'ensemble des écoles parce que parent yi dëgg la jàppale élèves mais jamono dafa métti commune bi ñu am ci xaalis ñu bëree si néew. dajale benn budget bu constant pour primer les meilleurs élèves donc chaque école on a vingt neuf écoles au niveau de la commune chaque classe on a pris meilleurs premiers c'est pour le le de l'excellence nekk également une à Colobane pour élèves euh, dans ans on retrouvera des médecins des ingénieurs des avocats des enseignants des professeurs loolu mooy soleil bis bi te suñu euh, priorité ñu éducation daf ginnaaw bi ndox euh, jàlle ginnaaw bi euh, wér-gu-yaram jàlle ginnaaw également bi courant jàlle loolu mooy solo yu bis bi pour daal récompenser magnifier effort enseignants yi magnifier également résultats yi nga xam ne am nañ ko au niveau du département de Gossas au niveau de la de Colobane tey jii bu éradiquer li ñu naan euh, abri provisoire yi maanaam on travaille pour améliorer les conditions d'études également ñu ngi accompagner le comité des directeurs d'école en termes d'appui sur école bu ubbee parents yi bëri ñu am lu ñu jëndee fourniture tant que maire ñu jël ay fourniture am na ñaan un suivi bu ñuy def ci les meilleurs élèves que élèves bi bi ñuy premier au niveau de Gossas parce que seeni parents nag ci jàpp euh, mairie bi daf si jàpp euh, école bi également jàpp bu paree aussi comme Colobane am na lycée dina leen accompagner au niveau du lycée avec en relation avec le département de Gossas bu ñu paree aussi pare ñoom ñoom ba amicale bi nga xam ne nii mooy les élèves et étudiants de Colobane dañ leen di jàppale ci wàllu euh, ticket ci wàllu chambre pour que ëllëg les les ressources humaines yi nga xam ne ñun dañ koy soxla pour développer Colobane parce que Colobane dañuy soxla ay ingénieurs dañuy soxla ay euh, médecins dañuy soxla ay inspecteurs dañuy soxla également ay magistrats ay avocats ak ay euh, spécialistes yoo xam ne nii ëllëg ñooy jëmal Colobane parce que développement bi c'est à la base moo tax ñun lépp xam ne nii en tout cas ci commune bi on n'hésitera pas à investir d'abord sur euh, la santé sur nous accompagnement bi c'est un partenariat parce que lii lii mën naa ne ab euh, jukki la ci yéene bu rëy bu ñu am ci éducation li ñu bëgg mooy que ne bu ñu cité euh, les maires du département commune Colobane jël premier les maires de Fatick commune Colobane jël premier bu ñu cité les maires du Sénégal dañu bëgg commune Colobane jël premier donc partenariat boo xam ne nii c'est un partenariat gagnant-gagnant instaurer désormais avec de l'éducation. monsieur le maire de Colobane la. éducation nag du boutique indi ñaari téeméer jaay ma kaye ñu delloo la wecce ci saa si déedéet moom kay da ngay nangu investir xaar ngay xaar di xaar di xaar ba am un inspect un un un un ingénieur hydraulicien da ngay investir di xaar ba am un polytechnicien da ngay investir di xaar ba am un inspecteur noonu la di éducation di demee donc waa parent yi laay waxal ndax li ñuy wane fii ci Colobane depuis démb ñoo ngi woon jaabel tey ñoo ngi Colobane ànd kook inspecteur de l'éducation Abdoulaye Oumar Kane ngeen xam ne taxawaayam ci département bi ñépp ko rafetlu lu fi ñëw ak léegi rek créé na lu mot juróom-ñaari école loolu ngir lan pour njàng ak njàngale soxla ko ci département bu Koloba eh, bu Gossas te loolu su fekkee ay parents d'élèves yu takku fekk fi ay enseignants yu ñu motiver fekk fi des autorités territoriales ñi nga xam ne dañoo engagé wu pour le développement loolu seen liggéey de war a yomb ndax jàpp naa ne monsieur le maire lépp liñ fi mënta def ci ressources humaines du doy du doy nañu yokk seeni loxo école yi ngeen wax doléance yi ñu si posé dégg nañ ko te yéen ñëpp xam ngeen option du président de la république lu mu wax si njàng mi ak njàngale mi bu ñu nekkee université xamoon nañu lu fa xaw soo demee université léegi xam nga lu fa xaw bu ñu nekkee si école élémentaire yi xamoon nañ fa lu fa xaw soo seetaanee léegi nga xam Colobane bi nekk commune am son lycée de proximité école yi nekk ci biir gox bi yëpp fu nekk ngeen tabax ko ay salle de classe loolu équité territoriale la te loolu su ngeen koy jëfee yéen a ngi jëfee ndigal président de la république te mairie démembrement de l'état